lépp loo xam ne nii lii li son pap bëgg rek ci alaay abdu rek ñoom ñu ngi koy dox lépp lu mu bëgg daal ñoom ñu ngi koy dox man tamit bi nga xam ne tey alaay abdourahman nekku fi lépp loo xam ne nii tey war na ci xale yi lépp lu ci war ak lépp foo mën a demee nag koy dox maa ngi koy ñoom du ñuy toog waaye lépp lu am ci xale yi rek man maay dem dox ko maay woote téléphone maay wax ak ñoom rek la ko te ñoom duñ fi nekk di ci sant bu baax nag di rafet lu bu baax nag wax dëgg yàlla daara ji moom euh, euh, waroon naa gën a gaaw sax pour mu ñëw fi parce que am na lu bëri loo xam ne nii tey defar na ko fi. Mhm. waaw wax dëgg yàlla parce que tey da ngay toog sax ñu naan njuufeen kañ la commencé gàmm. Mhm. te loolu rafet na. dañ ne sooy ànd dal ànd ak ku baax. Mhm. alaay Abdourahmane am na loo xam ne def na ko ci def na ko ci manit wax dëgg yàlla diggante bi moom ba am. yàgg naa di jógee caaxo jógee mbirkilaan di dem caaxo papa ma ngi yoni fi fii mbirkilaan mu jël si xaalis. saa bu ma demee fekk ko taliba. fekk ko fa mu toog ma ne ko nañ dem ñu añi ñu ñëw fii boobu amaguma sax euh, soxna. waaye ci jamono yooyu si laa takk soxna ci jamono boobu ci nga takk soxna gàmmu gi commencement am lan nga ci mën a wax. commencement gàmmu gi man ak El Hadj Abdoulaye dañoo toog man ak moom bañ toogee ñu waxtaan ne fii de war nañ fi mën a commencé gàmmu ñu toog ñu xelaat xelaat boobu waxtaan ci ba déggoo ci ay kàddu léegi mënuma loolu dinañ ko def ñu jàpp jour nag benn jour ñu jàpp ko rek ne dañ koy def léegi tey ñu ànd dem ci kuy jaay ganaar laay ndaw ndeysaan yal na ko yàlla yërëm parce que génn na àdduna ma jógee fi man a alaab du ñu jël watiir dem ba këram bañ demee alaay Abdourahmane jënd ñeenti ganaar yi ma jënd juróomi ganaar yi man ma jënd ñeenti yi ñu ñëw fii tey ñu commencé ko fii tey suñu kër buñ ñëwee ñu indi ganaar yi fii ma rendi ko ñu commencé ci si lañ commencé gàmm gi tey jii ba yàlla tey jii fi ne gàmm gi amul tànki gannaaw tànki kanam la waaw di ñaan rek نسعى لك فتح من المال والجماعة هاجلا غير هاجلا نقتل عمري وسيرتي بداني وتعطي الله معرفتي وهجابتي قبورا وبركة في أموالي ولا على بركته بحرمتي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أهلق والخاتي لما سبق النازل الحق بلا والهادي إلى صراط المتقين وعلى آله حق قدر مقام نسيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جريدة